woo même dama nekk sama sànce bi nii après naa la woo waaw mu ni mu ni mu ni looy def nii ah. dem naa dindi kàngaay tëj. xay ba ngeen ma dem na kër yi kàngaay yi tëj nga wax man di ma yuuxu. xay ba di ma waaye ma ne. wulli eh. di nga tey waay. waay wulli pop pop pop kara yi jeex na peinture bi jeex na lii jeex na dara amul tëdd yi nelaw. wuute xaaral xanaa xamoo siwo bati. siwo siwo bati. siwo bati moom mooy ñan. waaw am nga internet. bu baax ci laay dox waaw ngeen dugg siwo bati point com ñu commande. lépp loo soxla. ci wàllum tabax. même ba ci fer sax dañ la koy jaay. peinture dañ la koy jaay. jeex na dina jaay carreau chaise anglaise lépp lu jëm ci toilette ak cuisine plomberie ñoom dañ la koy jaay. kenn du ñoom seen numéro téléphone père. 78 457 96 92. waaw soo bëri mais loolu jarul xulóo yow tamit nag. looy joxe sa xaalis xaalis. ay lay ay ay ay lay damay nelaw kéenkaay tëj na jeex na. leen nag nelaw amatul ak soobati nelaw dootu am xam nga nag santa santal bati bu baax a baax bu doon nag soobati nag bati naa la bu yàgg maa ngay dem nag naa la fekkaat fi ngay nëb. nga commandé léegi mu ñëw léegi. xale yi neexut si asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk ci BT ak ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen la comme ni ñu amee habitude di leen ko defal saa su nekk di leen indil seen xibaar yu gën a fës ci réseaux sociaux yi tey nag dañ koy daal di ubbee ak mbirum Moustapha Cissé Lo ginnaaw audio yi nga xamante ni moom moo tasaaroo ci Sénégal ñu ciy dégg mu ciy wax ay kàddu yu tegginewul du ko jëmale ci ay doomu aadama. Euh, boobu ba tey nag am na autorité yu bari yoo xamante ni yëkkati nañ ci seen kàddu di wax ak Macky Sall ngir mu daal di ci euh, saafara euh, ku ci mel ni grand serigne de Dakar tamit nee na suñu njiitum réew da ko war a sanctionné yóbbu ko ci justice keneen ki nekk Marie Thérèse Faye moom nëbbatuwut benn yoon. jàpp na ne li nga xamante ni moom la Moustapha Cissé Lo def mérité na prison ba tax na ñenn ci sénégalais ci seen ay commentaires ci réseaux sociaux yi jàpp nañu bu Assane Diouf waree tëdd kaso ndax ay saaga donc Moustapha Cissé Lo tamit war na faa mën a tëdd wala rek ñu daal di génnee Assane Diouf loolu nag waral na suñu njiitum réew daal di convoqué benn réunion d'urgence commission. Euh, de discipline euh, bi nekk ci biir euh, a ginnaaw ba ñu toogee seen biix daal di waxtaan jàpp nañ ni daal kii nii di Moustapha Cissé Lo reyee nañ ko ci APR à yi maanaam amul lenn loo xamante ni. lañ koy amal muy tey di ëllëg ba Moustapha si Lo daal di ciy dugal loxo. di wéyal suñuy xibaar ci wàllum santé gis nañu nag jàngoro yu coronavirus soxna na alal yu takkoo takku lool ngir mën a xeex ak moom rawatina économie réew yi nga xamante ni mi ngi xal di ko suuxal saa su nekk ba tax na fii nii ci réew mu Sénégal. lu doole ci 30 pour cent budget bi nga xamante ne dañ koo denceeloon jàngoro yi sida maanaam pour mun koo wutal ay uh, saytu at di ci jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko amee uh, daanaka 30 pour cent yooyu noonu jàngoro yi uh, coronavirus daal dina koy jël ginnaaw ba mu duggee ci réew réewum Sénégal 4 mois yi mu fi defagum. ñu daal di jàll fële na leen ca diwaanu Rufisque gis nañ ni nag ñàkkum ndox mi. waral na askan ba fa yeewoo muy góor di jigéen di mag di ndaw ñu daal di booloo rek daal di def benn manifestation toog waxtaan naka la ñuy def ba xew loole ndax mënatuñoo am ndox mu set. boo xamante ne dañ koy utiliser seen biir kër yi daanaka sax forage yi ñuy dem di fa wut ndox ndox ma sellul ba mën leen a toggal wala ñu ciy naan wala ñu ciy def yeneen usage yoo xamante ni dafay dem ci biir. Ah, ba tax na nag defaat nañu appel ki nga xamante ni moom moo di suñu njiitum réew président de la république Macky Sall avertir nañ ko ci wàllum ndox mi nga xamante ni amul benn set ah, teewum waa Rufisque di ko utiliser saa su nekk mu nekk avertissement boo xamante ni nag nee nañu ay manifestation ah, moom moo ci nar a topp. daal di jàll fële na ci diwaanu Sandaga boobu ba tey ñoo ngi naan dañ koy toj commerçant ya fa nekkoon. doon jàmmaarloo ak autorité yi nee nañu dañ ko tàcc lu dul ne mois euh, tabaski bi dafa jàll. loolu waraloon na nag xalifu général des mourides daal di ñaan njëkk rek ki nga xamante ni moom moo di Aly Ngouille Ndiaye waaye ba mu ko ko ñaanee may na ko ko waaye yëglewaat na ni euh, bis bu tabaski nekkee euh, le premier août incha allah le 2 le 3 dinañu toccu marché bu Sandaga pour que commerçant bépp bu fa nekk rek nga daal di koy préparer. waaye li nga xamante ni nag moom la docteur Adama Ly Pam daal di yëkkati wax moom mu nekk benn historien archiviste mi ngi yëgle ni Sandaga kenn waru koo toj ndax bu ñu saytoo texte yi Sandaga bokk na ci euh, immeuble yi nga xamante ni archive la fii nii ci Sénégal te ku ne xam ne ne mbirum archive moom kenn du ko laal noonu lañ ko war a bàyyi donc moom comme que texte yi daal dinay défendre Sandaga rek jàpp na ni kon nguur gi bu ko tojee euh, tegu ko ci yoon ñu daal diwaanu Gueule Tapée docteur la ñëpp daal di koy xam mu xarañ loolu ci wàllum ba ñu nekk dentiste boo xamante ni ñu bari ràññee nañ ko waaye nag dafa mel ni da cee raxoon jaay li nga xamante ni moom moo di yàmba ci cabinet dentaire bi mu doon yëngoo ba tax na police daal di na fay def descente. Euh, teg ko loxo moom fekk ci moom ay cornetu yamba yu bari tegaale loxo tamit euh, benn client boo xamante ni dafa ñëwoon ñu fekkaale ci ay poosam ay cornet yamba. ñu ñëw ak yéen ci wàllu sport làmb lañ koy daal di ubbee euh, kii nii di Boy ñaa 2 dafa rejeté lu toll ci cinquante cinq millions de francs CFA yoo xamante ni. Gaston moom moo ko ko tegaloon pour mu bëree ak Balla Gaye 2 boobu ba tey nag ñu ci bëri. Ah, ñoo ngi koy duutu baaraamu tuuma di ko yëgal ni Boy Niang 2 bu dul dara sax da nga waroon a sacrifier ah, nga bëri ak Balla Gaye 2 nga xam ni sa avantage la ndax kii nii di Balla Gaye 2 moom Boy Niang ah, bu bëri woon ak moom mu daan Balla Gaye wala daal Balla Gaye daan ko yëpp avantage am ci moom la da koy permettre beneen yoon bu amatee combat promoteur yi daal di koy fay alal ju takkoo takk waaye ñu ci bari nag jàpp nañ ni Euh, entourage yu Mboy Niang 2 moom moo baaxul moo tax liñ ko dugal euh, jamono ji daal dina koy pénaliser ba adversaire am yu ci bari am nañu combat te bu moytuwul lekk dina def année blanche. ci wàllu wàllum bu ñu ci daal di ñëwee ak yenn mercato bi nag Koulibaly jamono ji dafa mel ni waa Napoli ubbi nañu porte yi pour club yi nga xamante ni ñoom ñoo koy soxla ba tax na nag Manchester United ak Manchester City jamono ji ñoo ci digg xeexoo bu méttee métti. ku ci nekk rek saay bu xëyee yaa ngi wone sa doole waa Naples pour mën a jël Kalidou Koulibaly Manchester United moom pare na pour lépp pour mën a am Sadio Mané loolu waral na Manchester City tamit daal di joxe waat lekk démarche pour mën a am Kalidou Koulibaly ci kaw beneen club bu ñu dikkee ci coow bi nga xamante ni moom moo dox ci diggante Aby Ndour ak Atepa Goudiaby umpaliwu leen ni nag ni semaine bi ni ñu génn Aby Ndour defoon na ab sortie bu ci doon def ay révélation waaye kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko ci Atepa mu nekk ay accusation euh, yoo xamante ni nag booba tey ñoo ngi doon déglu Atepa daal di ci wax waaw wala mu wax ci déet te ginnaaw bañ ko invité euh, ci ab émission moom moo ate Atepa bi mi ngi yëgle ni ba mu gëjee teg bët Aby Ndour ak suñu joonu yàlla tey jii euh, toll na ci 3 ans Aby Ndour doomam la nekkul moroomam nekkul mapandoom et c'est la première fois ñu koy dégg fii nii ci Sénégal turam ñu ci boolee affaire mœurs donc nag du def lu dul bàyyi ko yàlla te di ko yëgal ni toog na ko ba ci kanamu yàlla. ñu daal di wéyal suñuy xibaar xaw ci Eumeu Sène ak gardam yi nga xamante ne ñoom ñoo doon dóor kii nii di Ibrahima Touré ba mu jaare fa ñàkk bakkanam boobu ba tey nag yoon mi ngi wéyal enquête bi waaye Eumeu Sène ba mu demee ci gendarmerie ba euh, pour ñu daal di koy entendre kàddu yu mu yëkkati mooy que ni fexe woon na ba wax ak Ibrahima ba euh, bés bi nga xamante ni dafa doon jéem a lewal oto mu yëgal na ko ni ay seex. Euh, ñoom ñoo ko yónni ay seex yoo xamante ne ñu bari xam nañ leen fii nii ci Sénégal waaye turu seex yi nag tudd ko benn yoon jàpp ko ndax moom ci jëmmi boppam amul seex yooyee dafa am benn intermédiaire boo xamante ni moom moo wóolu Ibrahima Touré. yoon yónni ko pour mu ñëw lewal oto bu Eumeu Sène Eumeu Sène nag nee na ba mu dikkee fekk askan ba daal di koy tiimoo ci la daal di demee xooli otoom ba xam am na lu ci manqué am déet naka noonu la di kàtt fekk Ibrahima Touré mu daal di sonn loolu waaye waxul benn yoon nit daal di koy teg loxo te fekkewul tamit ko ay gàddam di dóoree lu ci mënti am daal kii nii di way jur bu góor bu Ibrahima Touré moom mi ngi yëgle ni justice rek moom mooy tax mu daal di dellu ginnaaw. ndax doom moom dëddu na ko ba pare te amul lenn lu ko mën a delloo si ñi nii di garde Eumeu seen yi nga xamante ni ñoom la ñu tuumaan ni ñoo ko doon dóor ñoom ci seen jëmmi bopp nag nee nañu ba tey teguñu ko loxo donte sax a toogoon nañu fa di fa jéem a défendre naan dañ koy téye ba gendarmerie ñëw waaye ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ca diwaanu mbaaw ñoom ñoo doon teg loxoom ci kawam lu ci mënti am ñoo ngi jaale ay mbokkam ki nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo di ko ñaanal yàlla fa mu jëm mu daal di koy gënal fa mu jugee bu ko defee ñu daal di ñëw ak yéen ci bilan wu tey bu jàngoro yi coronavirus bi tey ci 7 juillet 2020 bi ginnaaw ba ñu amalee euh, lu toll ci 693 test 69 ci ñoom ñoo amee jàngoro yu coronavirus bi. mu nekk 43 contacts suivis 3 cas euh, yi nga xamante ni importé la ak 23 euh, cas communautaire bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla tey ji gis nañu Sénégal am na lu toll ci 7547 personnes yu amee jàngoro yo coronavirus bi 5023 personnes yoo xamante ni euh, seen wér-gu-yaram moom mucc na ay ba ñu ñibbi seen kër yi 137 personnes yoo xamante ni nag ñoom ñoo ci bàyyeeko cent 2386 personnes yoo xamante ni ñoo ngi sous traitement di ñaan yàlla rek naka rek tiis bi nga xamante ni jàngoro yu coronavirus moo ngi wéyal di ñu ko tekk suñu borom daal di ko fi yemale jëlee ko fii ci Sénégal ak àdduna wërgal këpp di ñaan yàlla tamit suñu borom bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiitoo te jàngoro jàngoroy coronavirus daal di leen fiy jëlee fa ñu jëm gënal leen fa ñu jóge di jaale seen mbokk di leen ñaanal yàlla xolu muñ Euh, tey ñaaxaat askan bi rek ñu respecté li nga xamante ni moom moo di mesure euh, sanitaire yi mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci seen xibaaru Actu Net di leen jaajëfal te di leen jox di daje ba suba incha allah.